lii nag ndogal bu daanu suñu kaw rek ndogal moom bu ñëwee ñëw na yàlla bu soxlaa ñun dañuy ñàkk mais sunu xel dal na parce que nit ku mel noonu yaa ngi doon wax sànq ndax dina am remplacement mais dinañ ñu fi ne danañ jéem mais ku mel ne noonu ku mel noonu non raar na si jamono bi te dafa nekk nit koo xamante ne euh, nit ku am yërmande ci doomu aadama nit ku mën a def lu baax man bu ma xoolee moom amaro yi moo ñu moo ñuy arrangé te man chaque jour dama ñëw di tapas ko maa koy tapas maa koy tooj amaro amaro ñëw arrangé problème boobu ñu àndaat nekk ci jàmm mais amul kenn koo xamante ne Sénégal li mu doon dundal si ay nit man na un million de personnes te kenn xamu ko te bu lay dimbali amul lenn lu muy wax kon mbokk kooku dañ koy ñaanal suñu borom am nañ nag naqar trop parce que daf dinañu manqué te commencé nañu manqué te loolu yàlla nag yàlla nag mooy xool ko neex mu def mais moom dañ koy ñaanal rek mu dem àjjana yi gën a kawe yàlla ñi fi des yàlla taxawu leen jàppale leen ñëpp am jàmm mais dañuy sant Omaro bu baax ko sant bu baax a baax a baax a baax a baax lekkul naanul te man xam naa li may wax dafa nekk ni koo xamante ne lu moom ak Mamadou lépp lu ñu mënta wax des fois ñu des fois mu xaw a neex des fois mu xaw a tàng mais après dañuy nekk ab benn te Mamadou danaan ku ma bëgg ku ma bëgg ku ku bëgg man dara bàyyi ma ak Omaro bàyyi ma ak Omaro sama Omaro la tey bu tooyee këram gisul Omaro da koy wooteel foo nekk ñoo léegi kon boog loolu seen diggante non diggante bu extraordinaire la kon boog yàlla na yàlla def jàmm ba mu nekk ni mu nekkee nag moom noonu ñun tam ñu ñëw nekk ak moom noonu parce que am na kóllëre kon ñu kóllëre boobu ñun duñ ko fàtte te yàlla suñu borom moo ne nit li muy dund loolu rek la war dund fa la war a yem kon boog ñu fi nekk ki nga xamante ne moo moo fi nekk muy Cheikh Baba Omaro nañu góorgóorlu xam ne wan na leen yoon bi yoon bi mu leen wan nag nañ ci continuer jàppale jaamu yàlla yi comme ni nga ko daan defee dimbale jaamu yàlla yi comme ni nga ko daan defee. Mm-hmm. te man dama am surprise surprise bu rëy dama toog keroog mu woo ma téléphone ne ma da ngay dem umra moom 10 personnes ñooy dem da ngay dem umra. visa umra yi génn na si la si yàlla jëlee nii kon boog ba pare mu ne ma mu ne gars yi nañ uti téeméeri xar pour préparer tabaski pour dimbali jaamu yàlla yi gars yi dem uti téeméeri xar ya ba bana ko fi mu dem waxaale vingt terrain vingt terrain pour jox ko ñi nga xamante ne jaamu yàlla yi amuñu terrain jënd vingt terrain pour jox ko jaamu yàlla yi far yàlla mbëbit boobu la ko yàlla yóbbu. mercredi matin daf ma woo téléphone ne ma dama bëgg nga jaar fi nga ñëw fi booy ndogu ma ne ko noo dama am fu ma nekk kon boog maa ngi ñëw léegi ma ñëw mu ne ma léegi woote naa vingt heures siège ba pour ñu xool naka la ñuy def pour ma wax leen ki ma bëgg ngeen ànd ak moom. ñu foo reetaan man ma daal di dem après lañ ma woo ne mi ngi hôpital man loolu laa si am ma fekk ko mu tëdd ma ne ëpp ndaanaan na booy wër ndaanaan kulli fadrin di wër jaamu yàlla di wër li prophète yi doon def moom la doon def da fekk nga nekk nga nekk amoo dara mu jël la teg tette la teg la si yoon nga am dara. jërëjëf jërëjëf kooku ñu ngi koy ñaanal yàlla yàlla yóbbu ko. bu leen koy jàllawaat bu jërëjëf.